ni leen ko doon waxal léegi ginnaaw entraînement bi nga xam ne Casemiro euh, def na ko fële ca Real Madrid jóge na euh, ngeen gis oto bi noonu ci télévision espagnol yi nga xam ne ñoo ko doon def en direct waaye ba mu fa jógee euh, daa wëri dem ñibbi fële nga xam ne mooy këram bu fa jógee nag jël ay bagages am lay def dem fële nga xam ni moo nekk Angleterre ca Manchester United tey jii war na fa àgg gën gaa néew suba ak jàmm pour def la nga xam ni mooy visite médicale am signé benn contrat boo xam ne ci taabal ji moo koy lié ak goney Manchester United loolee mi nga am ginnaaw ba toogee ak Carlo Ancelotti nga xam ni léegi la ko yebbi di wax ni ah, moom mi ak Casemiro toog naan waxtaan waaye la ko gën ak brésilien bi yëgal moom mi ah, di ah, ki nga xam ni mooy Ancelotti mooy day jóge fële ca Real Madrid ndax dafa bëgg a xool baneen ceebu jën ndax maafe rek mënu cee dëkk